bëggoon naa ñu gën ko yaatal mais ñu wax également ci arrestation yi mu mel ni temps yi euh, bëri na te liñ ci gën a gis également mooy euh, le fait que qu'on attrait devant la barre wala sax ñuy arrêté bokk wala ñuy convoqué ay taskatu xibaar ku ci mel ni euh, Babacar Touré muy directeur de publication bu site d'information boobu di Kewoulo également Moustapha Diop di directeur général bu Walfadjri ñu may wax ni sax libéré nañ ko récemment après audition sunu naataangoo boobu di Pape Ndiaye mais boo xoolee fi situation bi toll nii ñuy ñuy ñuy ay journalistes ci intervention yoo xam ne def nañ ko ci seen i organe de presse wala ñuy wax ci ay sujets d'actualité lan lay def si yow en tant que. waaw observateur. mais c'est que observateur mooy dama naan euh, régime bi de moom dawul coow. Mm-hmm. yow fii Sénégal toll fi mu toll nii ak coow li. Euh, deuxièmement yow président Macky nga ni da ngaa bëgg a woote dialogue. je pense que da nga war a euh, régler d'abord les conditions euh, que dialogue boobu mën a nekk deuxièmement dafa may renvoyer ça veut dire que dans ces conditions là dialogue mënut am président Macky kon donc est-ce que kon président Macky Sall li muy woote gëmu ko ou bien. ko bëgg a renvoyer si dialogue bi oui oui oui non non parce que bu ñu bëggee waxtaan. c'est-à-dire que mënuñu waxtaan di lekk suñu ceeb a côté fii ay boy di xeex. Mm. mais saa yi il faut ñu lijjanti loolu. ñu jokkaate soit poussière bi. Mm. dana ñëw ci bool bi wala boog ñu këpp sax bool bi. Mm-hmm. kon donc xam nga te wala daanu ci bool bi. kon donc léegi pour ñu mën a dialoguer mm. il faut ñu apaiser. waaw comprendre mm-hmm. parce que lu tax ma ne la parce que média loo ko génnee euh, ci politique. comprendre mm-hmm. dans notre processus démocratique. les partis politiques ak les médias daanaka ay poumon nañ ci. lu waru kii lu wokk kii dana xosi ki comprendre nga parce que ils vont de pair kon donc man pour man soo bëggee pacifier le champ politique il faut aussi pacifier le champ médiatique président malheureusement ñoom jàpp nañ ni et cetera bon première chose ça veut dire que dans ces conditions deuxième chose euh, daf lay confirmer li président Macky Sall di bañ ñu tudd ko te danañ ko wax mooy lan mooy les prisonniers politiques waaw waaw waaw la majeure partie ci affaire yi lii nii nii heureusement ba yeewu yaa ma wax sax ni bàyyi nañ ko mhm. mais Moustapha Diop bu ñu ko téye woon mhm. kon donc jàppal ni prisonnier politique c'est-à-dire que gis nga journaliste yi xoolal waaw la détention il est placé en le directeur de publication de Kewoulo Kewoulo absolument man bi may ñëw déglu naa vidéo de trente minutes bu ko ci wek yooyu Euh, ak euh, le policier Nawel la euh, Frédéric Nappel ah très bien mais également qu'il avait porté plainte contre voilà mais mais mais moom Babacar Touré li mu wax de lu leer naññ la waaw mën naa dugg ci xel de hmm. waaw man de bu mu ko waxee hmm. le temps que may déglu nag hmm. l'autre camp ñu wax mais li mu ni mu ko wax agressif ni mu ko defee waxi nit la est-ce que voilà ni mu ni mu expliqué waxi nit la te bu dee loolu mu ko waxee noonu gisuma lees na ci war a mën a jàppee nit. Mhm. comprendre wala mhm. du l'idée bi ngay wax des prisonniers politique bi président Macky Sall. Mhm. te cour boobu dama koy ci répété waat. dama ko ciy ñëwaat. président Macky Sall dafa xamul euh, lan mooy définition prisonnier politique. waaw euh, te dinaa ci ñëwaat xam nga prisonnier de droit commun yi moom. mooy la ma waxoon nga sàcc ganaar ñu jàpp la. loolu vol la. Euh, prisonniers de droit commun. Mhm. comprendre euh, nga rey nit. Mhm. ñu jàpp la. Mhm. parce que loolu crime la. abus de confiance. ma lebal euh, mille francs nga war maa fay di nax ma. comprendre mais sur des sujets éminemment politiques. nit bind. def liberté d'expression. sur un sujet thématique éminemment politique. nga jàpp ko ci tëj ko ci. loolu prisonnier politique lañ koy tuddee. Mhm. parce que l'affaire et éminement politique. politique ouais. te délit d'opinion mhm. amagul suñu code de la presse est-ce que comprendre nga. Mhm. délit d'opinion amagul kon donc su nit ki waxee benn affaire ñu jàpp ko ci la mu wax. Kewelo comme ni ngay wax ni mhm. dafa expliquer ni si j'ai bien compris mhm. que waa ji le policier la mhm. mës nañ ko tudd ci benn affaire boo xam ni ça euh, affaire boobu dafa mujj doon meurtre waaw waaw voilà très turam wax nañ ko ci foo xam ni ca ko tuddoon kooku dafa mujj faat bakkanam mais et après il a donné le récit man déglu naa récit bi c'est clair c'est limpide très bien c'est limpide euh, avec des détails ah cetera kon donc kooku soo ko jàppee ci loolu mu wax noonu mhm. euh, président de la république excellence monsieur le président de la république c'est ça qu'on appelle les prisonniers politiques te léegi nag du ñu mën a euh, doo fi mën a woote dialogue mhm. Mhm. comprendre euh, prisonnier politique yi di nekk ci kaso bi nga bëgg classe politique bi bëgg a ñëw di dialoguer. ce qu'on a constaté Siré doguma la pour le cas des yi ñuy arrêté récemment ci Pape mm-hmm. euh, ba ci euh, Babacar Touré en passant par euh, Moustapha Diop et tout ça mais dafa am benn chef d'inculpation buy faral di ñëw diffusion de fausses nouvelles diffamation. Mm-hmm. des chefs d'inculpation yoo xam ne daawuñu ko woon gis des années précédentes lan moo changé entre temps jusqu'à ce que à chaque fois qu'on interpelle un journaliste. à chaque mm -hmm. fois ce, ce chef chef d'inculpation là en fait que c'est peut-être que inculpation boobu rek nga leen mën a nga leen mmh. parce que des fois euh, comme bi nga wax noonu diffamation dafa sew. comprendre nga mmh. ku ñu fi toppee diffamation boo amul chance loolu yaa ngi ci kaso dañ lay jàpp est-ce que comprendre nga. Mmh. parce que après euh, procédure moom moo sew. parce que déjà bu. procureur euh, euh, amee lu mu sàkku rek mhm. yow moom da ngay dem mandat de dépôt en attendant ñuy xool mhm. comprendre pour man euh, qu'on le dise ou pas il y a une volonté manifeste du régime et je demande aux gars de faire la distinction entre l'État et le régime mhm. le cas le président de la République non régime de Benno Bokk le régime de Benno Bokk le régime au pouvoir composé de Benno Bokk Yakaar et de uh-huh. ses éléments le régime en place uh-huh. euh, dafa nekk ci benn procédure processus d'intimidation yoo xam ni commencé nañ ko def yu bëri uh-huh. parce que foofu rek moo ko desee pour mener moom mu mën a mener sa bataille politique parce que c'est un régime qui a perdu la bataille politique qui veut maintenant utiliser ou user de l'instrument judiciaire pour régler des comptes politiques. C'est ce que j'appelle la juridisation de la vie politique ou la jurid etc. Mhm. kon donc moom avantage bu mu am nekk ci nguur mhm. mënul ta régler problème am en tant que entité politique mhm. foofu ñu dominer ko ci léegi nag leen rek def mooy day profito ci situation bu mu nekk pour mën a yokk dooleem mais yokk dooleem boobu nag dafa des ci ñi muy utiliser moo xam justice lay nekk moo xam force de sécurité de l'ordre comprendre na mhm. léegi ñoom ñooñu nag ñoo war a am seen fulla yu bopp mhm. def la part des choses en ce qui relève de l'État mhm. et ce qui relève du combat politico-politicien qui concerne le régime en place et l'opposition est-ce que comprendre mais de ne pas euh, se laisser instrumentaliser parce que comme disait euh, Montesquieu mhm. celui qui a du pouvoir est tenté d'en abuser mhm. kooku peut-être que doo ko ko bañal parce que mhm. moom loolu la gis comprendre mais il nous faudrait faire par la force des choses que le pouvoir arrête le pouvoir mais donc yow euh, bul nangu moom mu lay jëfandikoo ci ay affaires yoo xam ni euh, yow sa yoon nekku ci ci coobareem rek la est-ce que comprendre nga waaw parce que euh, yow Euh, ni nga bokkee ci moom mi nekk régime noonu mhm. nga bokkee ci opposition parce que yow ñooñu ñooñu ñëpp mhm. boo leen boole yow ñooñu nga fi nekkal